c'est la référence. kaddu gi euh, di àddoo fii ci studio Alioune euh, Momar Lo euh, juróom-ñeenti waxtu ci suba gi nag jot na ci service départemental élevage bu Kaolack bi mbokk yi salaamaaleykum dale nag jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ca seen boolu muñukaay nag dafa fes rek jamono jile ñoom liggéey liggéeykat yi nga xamee ne ñoo aju ci secteur primaire bi muy wàllu napp gi càmm gi ak it wàllu mbéy mi te nga xamee ne sii ne ñu ngi aju rekk ci diggante Kaolack itam ñu daal di xàppati ñetti fanu grève yoo xamee ne itam nee nañu rek duñu faslante xànceek morom mi seen indemnité ya nga xamee ne Abdoulaye Daouda Diallo da koo daggoon laataa ñu koy toxal loole daal la ñu wax ne nag mënee su koy warnaasu rek jamono jile lu ni mel daañu ko topp ak Cheikh Tidiane Diagne ngir nag daal di mën a xeex ñàkkum kaaraange gi nga xamee ne mi ngi ci kaw tali bi tax na itam agence bi nga xamee ne moo di ANASER lëkkaloo ko kilifa ya diwaanu Kaolack bi doon fi amal nag li nga xamee ne moo di ab CRD ngir nag daal di waxtaan ak acteurs yi euh, ci lu soxal wallu wàllum kod de la route bi li waral itam tànneefu Kaolack daañu ko xam euh, ci biir euh, xibaar yi wàllu njàng ak njàngale itam ab CRD amal nañu ko rek fii ci Kaolack ndaje moomee itam nag kon la ko wundoon mooy diisoo waxtaan ak tey xalaat ci rek nak nees mën a def ba nga xamee ne daañu amal ab ubbiteg l'école bu jaar ci yoon ndaxte itam moom iyaa bu Kaolack bi dafa gis kenn atam ren ji la nag yi bari na bokk na ca itam ci ay jàngalekat ay l'école yu inondé waaye itam ay lekkool yoo xamee ne ba jamono jile rek liggéey ya ñu fay amal noppeegul ponk bu ni mel daañu ko topp ci compte rendu bu noa bi yeey bu ni lépp yembee mbokk yi daañu ca teg xabaaru gàmmu geek xabaaru biti réew jeexalee ko tàggat yaram ak li gën a fës ci yéenekaay yi mu yemboog li gën a fës ci suñu ay xibaar nees kiis ñu indi ci faram-fàcce. Le journal Ngoné Ndiaye Reine. ña nga ca taaxum kaw ma ñu euh, duppe Cheikh yi Maam Assane Cissé euh, feggoog moom ci wàllu xarale gi euh, Serigne Moussa Kane xibaar yi nag nañu baaxoo di ko defee rek muy nag li nga xamee ni moo di suñu chronique judiciaire bi jëflanteeg sàcc nag ci wàllu jënd ak njaay ba nga xamee ni itam ne lool sax la ñuy tuddee rek wàllu recel bari na nag la muy yóbbu nit rek fa nga xamee ne moo di ca ndungu siin niki démb nak ca audience des flagrants délits bu tribunal grande instance bu Kaolack bi benn waay boo moom at ma nga toll nag ci juróom fukk ak juróom moom sax atte nañu ko ca loolee ba daan ko itam benn ati kaso boo xamee ne ñetti weer ya lay daal di tëdd lu ni mel nag di avertissement ca moom yaatal gi ak soxna Ndeye Fatou Cissé. sàcc yi bu ñu amuloon fu ñu rawalee alalu jàmbur yi ñu jël mën nañoo bañ a sawar waaye ay nit yu mel ne yow bokk nañ ci ñi leen di encouragé gannaaw benn at ba nga xam ne ñetti weer la ca war a tëdd bi tribunal bi teg ci kawam ni daan démb ba mu càmbaree nag. mbirum recel la euh, maanaam ne dañoo fekk ci moom alal bu jógee ci sàcc di ab xar euh, bu mu jotoon a rey ba noppi yooyee kàddu le juge ba doon jiite audience ba doon wax kon prévenu bi laata nag mu koy xamal ni daan bu ni mel la euh, avertissement dong la boroom xar ba teew démb ca audience ba ne xar mi benn melo woon na te moom bu ko doon jaay du yées cent cinquante mille fa nga xam ne nag prévenu bi ñuy toppee mbirum la lu ko jiitu la mu waxoon mooy dix euh, la ñu ko jaayee xar mi nga xam ne borom bopp ba la gis ci buntu dibitereem euh, ci jamono ji nga xam ne nag la doon wëre ay juróom euh, gannaaw ba ay nit yoo xam ne ba léegi kenn gisu leen daanelee miiru këram jiital kon ay xaram yu tolloon mu ne ci fukk ak juróom-benn ca saasa nag la mu xamal bërëbu àtteekaay bi démb mooy ne jotoon nañu caa récupérer juróom-ñaar juróom-ñeent ya ca des benn ba kon la fekk ci loxoy góor gii di wuyoo yor dibitër yi juróom fukki at ak juróom-ñeent la am moom nag gannaaw benn at bi nga xam ne ñetti weer la ca war a tëdd démb ca àtte ba tribunal bi àdduna ne dana fay uh, kii di partie civile bi maanaam góor gi nga xam ne moom la ñu jëloon ay xaram te ñu fekk benn ba ci moom uh, trois cent cinquante mille uh, yi mu laaj ni ndàmpaay démb nag ca audience su TGI bu Kaolack boobee jëm ci wàllum flagrant délit dossier yan fa càmbar gënoon na caa fës mbirum chanvre indien Samba li ni mel sax ay ndaw kepp la ñu ca àttee yooye ndaw sax xam ne àtteekat yi dañoo béral yërmande ci ñoom ndax ñoom ñëpp fukki fan ak juróom képp la ñu jibal ci seen kaw gannaaw kon ba ñu dëggalee ne dañu yoroon yàmba te lañ ca jublu woon mooy jëfandikoo ko. yéen gi ngi xibaar yi ci Alfayda FM. 90 point 1. ñu euh, daal di euh, wéy ci euh, xibaar yi lii itam junjoon leen ko gannaaw nag l' accident yu bari yi nga xamee ne nemmeeku nañu ko rek ci ay bés yi ñu génn ci fi nga xamee ne moo di ci zone centre bi wa ilaa itam ci yoonu corridor Dakar Bamako bi tax na itam waa agence nationale de la sécurité routière yi ci ndimbalu kilifay région bi ñoom nag doon fi amalee rek ab lël boo xamee ne buñ ca noppee xam jafe-jafe yeeg la koy saafara ñu ne itam daañu ko dëxëñ ci ab dugal ko ci plan stratégique national bi aju ci wàllu sécurité routière Cheikh Oumar Gueye mooy directeur général bu ANASER mi ngi ci micro Noa Biaye. tey dañu ñëw Kaolack pour continuer liggéey bi nga xam ni moom la ñu sas ci wàllum d' abord sensibilisation mooy fàttalante ci wàllum code de la route ci wàllum kaarange yoon dajale ci ak acteurs yi. pour gërëm bu baax monsieur le gouverneur de la région de Kaolack bi nga xam ni moo ñu may opportunité bi tey mu convoqué CRD pour ñu mën a ñëw exposer loolu pour ñu mën a ñëw joxe activité muy sensibilisation boobu waaye ci biir ndaje bi aussi duñ ci séntu taataan lépp li nga xam ne jafe-jafe la ci wàllum nu ñuy saytoo kaaraange yoon fii ci région Kaolack ak taataan yan solution la acteurs yi si seen bopp mën a génnee si jàngoro yooyu bu ko defee ñu doxañ ko ci benn téere defar plan d'action indi yi pour jéem a xool nu ñuy ànd ak acteurs yi nekk au niveau local pour saafara loolu mu nekk si document national bi muy plan national de sécurité routière waaye du ñuy fàttali aussi que du ñëw Kaolack parce que gàmmu gi ñëw la nationale 1 ñëpp bi des accidents mortels ci axe bi lay corridor bi la mooy Dakar Bamako donc l' des accidents mortels si axe bi lay amee mooy axe bu gën a accidentogène démb wane na benn bés rek fukki nit ak juróom benn yu si faatu si ñaari accident kese loolu tax na ñu jox attention particulière à cette région ak zone bi yëpp moo tax occasion bi permettre ñu ñëwaale pour gën ñaaxaat suñu bopp waaye ñaaxaat acteurs autoroute yi bari na fii lu ci bare daanaka ni ñuy dawlee ci kaw tali bi ak ni ñu ni leen di moytoo loolu aussi bokk na luy indi accident. Cheikh Omar Gueye campagne de sensibilisation boobee nag ñuy defee fii ci Kaolack ak ci jamono ji itam ñu koy amalee nga xamee ne dafa yembook yemboog wàccaayu gàmmu gi mënees nay wax ne lu ni mel itam nag dox nag waxtoom bu ñu sukkandikoo ci kàddu adjoint au gouverneur bi ñu dénk wàllu administration Sidi Sarr Dieye ma jëmmaloon ndaje ma rafetlu na solo saaka tànneefu Kaolack ay. kàddoom ba ci micro Noabia yi. ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy utiliser lii di tali bi ngir mën a xeex lii di accident de la circulation mu nekk ndaje boo xam ne ñëw na ci wax doom ndax ñu ngi jublu gàmmu gi te dañu seetlu ne jamono jooju Kaolack day dalal ay gan yu bëri dañu ci bëri ci ñoom tali yi la ñuy jaare ci biir loolu ñu nemmeeku ne yenn saa yi ay jéyee dina ci am ay accident de la circulation mu ñuy jural ay loraange yu bëree bëri defee taxaw seetlu ci chiffres yi nga xam ne force de défense et de sécurité yi gaaral nañu ko dañuy gis ne Kaolack dafa am dañ fi nemmeeku accident yu bëri fi am li ko waral bëri na bokk na ci yenn saa yi yàqu-yàqu yi nga xam ne moo nekk ci tal yi mais li ci gën a bëri mu ngi aju ci problème technique yi nga xam ne seetlu nañ ko ci oto yi waaye surtout comportement bi nga xam ne usager wu tal yi am nañ ko mu nekk mbir boo xam ne buñ ci àndee ak jublu ci sensibilisation nañu ne a adopter un euh, xam ngeen ne itam ne ku wax nag kaaraange ci kaw euh, tali bi ala foog itam nga daal di wax rek tali yu euh, baax ci jamono jooju na nga xamee ne itam ne ñu ngay waajal gàmmu international bu Medina Baye bi lenn ci tali yi nga xamee ne ñu ngi ci biir dëkk bi jamono ji nag jàpp leen ne ña leen di jagalaat lu ni mel itam nag askan wi yéy nañu ci yàbbi ci joxe ca seen ak xalaat ci bile reportage yu Aline Badara lu néew ci ay bés ñu xajale ak gàmmu international bu Medina bàyyi tali bi jógee stop Medina ñëw ba fii ci jumaa ji mu mel ni gaay ñab-ñabal nañu ko loolu nag doon na loo xamante ni askan bi rafetlu nañ ko lool ginnaaw ba ñu sukkandiku ci kàddu kii di Massila Ndiaye. waaw alhamdulilah ndax loolu rafetlu nañ ko trop ndax luñ yàgg bëgg la nit ñi nag ñu ngi coow naan mënoon nañ ko defar bu yàgg mais xañ na lii la yàlla dogaloon alhamdulilah rabbil alamin léegi defar nañ ko macha allah alhamdulilah loolu moom lu baax la wax dëgg yàlla luñ bëgg la parce que tali bi yàqoon na lool wax dëgg yàlla amoon nañ ittee defar ko mas nañ koo defar sax mais loolu baaxutoon mais ni ko gars yi defaree nii gis nañ moo gën a rafet quoi alhamdulilah rabbil alamin kàddu benn ak ki nga xamante ni mu ci tuuru Mamadou Niang moom milee di ñaawlu bu baax a baax yéexaayu liggéey bi ci bile tali. liggéey bi daal tardé rek la def parce que heure bi ñu ko waroon defar defaruñ ko fu ni nii toog ba gàmmu gi des ay fan nga commencé liggéey bi liggéey bi du mel na mu war a mel parce que pax yi bëri na liggéey bi fii ak une semaine ci kanam mënuñ ko liggéey liggéey bu baax maanaam waa mairie na ci boppam nag ñoo waroon na def seet ay organisation seet ñoo xam ne ñi danañ war a defar dëkk bi defar bu baax ak liggéey ko liggéey bu baax parce que loolu moom la sëriñ bi soxla waaw ba ñu def organisation pour ñu li ñu def di ñu di ñu liggéeyal liggéey bu baax. Massila Ndiaye moom moomu la dellusiwaat na mel ni kuy tontu naam sax liggéey bi moom yéex nañu ko def wante doon na loo xamante ni dañ koy war a yeggale bu gàmm gi weesoo. waaw loolu mooy dëgg ji parce que indi woon nañ ko ba Kër a Sarr ñu bàyyi ko foofu mais yaakaar naa bu ñu ko defaree nii ba gàmm gi weesu naa yaakaar naa dañ koy xolliwaat mu kon ne quoi loolu mooy initiative bi. naam sax ñab ñabal nañu tali bile ngir kat yombalal dem dikk bi askan bi nga xamante ni ñoo war a ñëw gàmm fii ci diwaan bu Medina Baye ci ci fàttali nag gàmm gi lii bokk na ci taarix ndaxte ñu ngi màggal juddub sang bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wante askan bi ñoom ñu ëpp li ñuy wax mooy bu gàmm gi weesoo war nañ taxaw ci defarum tali bi ngir kat ñu mun a am tali yu rafet yu mucc ayib fii ci diwaan bu Médina Baye. jaajëf Alioune Badara Diop ci wàccaayu gàmm googe itam nag li ciy xeeñ jamono jile neexul dara maa ngi leen ko doon junj secteur primaire bi nga xamee ne itam ne moo nekkee ci réew mi eh, te daal di ëmb nag li nga xamee ne moo di wàllu càmm gi ak napp gi ak wàllu am mbéy mi bu nagamee nag ci ñetti fan yile na ngeen xam ne itam ne kenn def ko ku dul Abdoulaye Daouda Diallo ma ñu ne moo daal di dagg nag indemnité wu eh, liggéeykat ya nga xamee ne ñoo aju ca le secteur ba tax na sax ñu daal di mer ba futtu tàbbi ci am grève eh, Cheikh Tidiane Diagne ay morceaux yu xonq lañu ràngoo ci biir service d'élevage bu Kaolack liggéeykat yi nekk ci wàllug mbay mi napp gi ak li nga xamante ne moom moo di càmm gi dañoo am lool lu leen naqari ba tax na jamono ji ñu nekk ci grève Abdourahmane Cissé agent technique d'élevage la nekk chef de poste vétérinaire bu Ngayeen Sabax moo yoroon seen kàddu ci jano bi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi ci Kaolack. li ñu metti mooy président Macky Sall moom moo toog benn fête premier mai ne secteur primaire ne ne leen faites des indemnités internes ngeen jox ko seen ay maanaam travailleurs élevage def ko pêche def ko agriculture maanaam def ko ba ñu commencé ko maanaam fayee ko agriculture ak pêche fayee ko pendant sept mois élevage maanaam jotagut le sept septembre passé Abdoulaye Daouda Diallo mi fi nekkoon ministère des finances jël benn engagement impopulaire bu kenn mënta comprendre benn lettre circulaire simple ne moom dafay dindi indemnité yi nga xamante ne bii secteur bi mi ngi ko amee woon ci décret présidentiel. ñi nekk ci secteur primaire bi diggante région bu Kaolack Fatick di laaj ban dëkk la ñu nekk. nous sommes dans quel pays réew moo xamante ne bii le président de la république moo jël dëkke ne nañ yokk indam indemnité liggéeykatu secteur primaire yi ba ñu commencé leen ko fay ba waa pêche ak waa agriculture jël des engagements bancaires commencé changer seen système de vie élevage di xaar Abdoulaye Daouda Diallo le 7 septembre passé envoyé ñu benn lettre d'information ne ñu dañuy indam indemnité yi loolu la ñu a wax ne du yoon. Abdourahmane Cissé bi yoroon seen kàddu nag nee na dinañu gàllankoor lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllug pêche. agriculture ak élevage ci diwaanu Sénégal. sur le plan agricole benn statistique agricole wala benn suivi agricole dootul amati ils tout bloqué sur la pêche tout ce qui est contrôle de salubrité des poissons ñoom itam arrêté nañ ko en ce qui concerne élevage blocage total lañ def parce que moom su fekkente ni dafay supprimer indemnité moom nañ njëkkee ministère finance parce que ministère finance ci la bokk. ministre des finances bi fi ak ndaje moomee nag Cheikh Tidiane Diagne artu nañu dànkaafu kilifa yi alerte itam nag askan wi ci ndawal yi nga xamee ne jamono ji ña nga koy jën ak loraange ya nga xamee ne ña nga ca nee nañu nag bu weesoo itam ñetti fanu grève yooyee nga xamee ne xàppati nañu ko semaine rek dong lañu may nguur gi bu waxulu leer nag daañu delloo buuma ca mboy mboy ga Abdourahmane Cissé ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne yàpp bu ngeen gis ñu koy jaay ci marché xam leen ne vétérinaire xoolu ko saytuwu ko joxewul ndigal ngir population bi daal koy ci ñetti fan ci yii nii ñu jëm te kenn ku nekk xam na ne ndawal ci li joxe feebar la bokk ndax am na lu ñuy wax zoonose zoonose mooy lan ay feebar yoo xamante ne bii dafay jóge ci mala yoo na ci tuberculose rage ba ci corona bi ñu doon dund dafay jóge ci mala dem ci nit loolu nag moo tax balaa benn yàpp génn vétérinaire daf koo war a xool certifié ko ñun nag ñi ngi en grève ñuy alerter tout le monde ne leen yàpp bu ngeen gis mu génn bu ko kenn consommé parce que vétérinaire yi nga xamante ne bii ñoo ko war a xool xooluñu ko ñu ngi li ma lay njëkk leeral mooy ñun waa élevage ndax suñu ay nawle lañ bu ñu sañoon ñu leen teg lenn loo maanaam xamante ne bii gàllankoor lay doon rawatina nag événement religieux ñu yàlla yegg ak bi gàmm ba gàmm ñu am benn blocage bu ñuy def ci jëfandikoo yi nga xamante ne bii jullit yàlla yi dinañ ko jëfandikoo ndawal li waaye nag état Sénégal moo war a jël ay responsabilité am ci lan su bëggee mu yomb décision impopulaire bii Abdoulaye Daouda Diallo jël bëgg a dindi suñu ay indemnité ne ko kilifa réew mi xamal ne ko loolu wax dañ ba ministre finance bu bees bi na jël ay responsabilité am dindi bi agent élevage pêche agriculture mën a delluwaat seenu liggéey day tiit maanaam bañ a am bu ñu kii d'accord suñu ay kilifa la ñuy liggéeyandool dans le cadre d'un intersyndical décision yi ñuy jël ñoom ñoo ñu koy imposer ñoom ñu koy wax ngir ñu ànd ak ñoom liggéey ñooñu ñu ngi leen di déglu ñoom ñoo jël les décisions opportunes par rapport à la grève su fekkente ne dañoo wax ne nañu àggale grève bi donte gàmmu gaa ngi fi tey nag ñaanuñu ko yàlla malheureusement dinañ ko def kilifa réew dindi décision bi balaa gàmmu a àggale grève bi dafay continuer ci pàttali nag seenu ko grève ah, boobee nag jàpp leen ne ah, talaata la ñu ko ah, sumboon fukki simili ak juróom jot na nag teg toftal na ci juróom-ñeenti waxtu ci suba gi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM wàllu euh, politique euh, ndaw yi ko gère yi nga xamee ne ñoo nekkee nag ci département bu euh, Kaolack bi ñoom nag gannaaw tabe tabeefu ngornement bu yees bi nga xamee ne itam ne taxawal nañu ko te it nag ay doomi Kaolack daal di cay bokk tax na itam ñu doon ci amal rek ab jano ak taskatu xibaar yi ngir nag daal di cay addu rek jëmale rafetlu nañu nag tànneef gi nga xamee ne njiitu réew mi def na ko te ñu gis ne itam ne ngornement bu bile daal dara taxu koy jóg rek lu dul nag saafara jafe-jafe askan wi mu itam wàllu dund gu euh, cher gi Bokar Diallo mooy euh, coordonnateur ba mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. gouvernement bu président de la république def bu mu ko tàbbee avant mu koy def am na un discours à la nation bu mu def la veille discours boobu li ci gën a yitteel président mooy dund bu seer bi nga xamante ne dafa lëmbee jamono du Sénégal rek du Afrique rek mais àdduna wërngal këpp la donc loolu nag li ko waral mooy jàngoro Covid 19 bi nga xamante ne nekk na fi deux ans kenn demul dikkul ala kulli aal day am ay njeexital ci dundu askan président ne premier ministre Amadou Ba am na li ma la dënk am na li nga xamante ne bëgg naa nga taxaw ci mooy ginnaaw bu ma jëlee six cent vingt milliards ma génnee ko ci gafaka état ma jàppale waa Sénégal jàppale néew si doole yi damaa bëgg aussi fas bi moom loo ko labbali rek doyul comme le disait l'autre tant qu'il reste à faire ça c'est que rien n'a ci kaw loolu la président de la république démb rek mu dajale ci palais association des consommateurs ak commerçants cher bi ak affaire loyer naka lañ koy wàññee ba vraiment teggi coono askan bi nga xamante ne moo ñu wóolu teg ñu à l'Assemblée nationale moo ñu wóolu teg ñu ci boppu réew mi donc ci loolu ñu jukki ci fukk ak benn mesures yi nga xamante ne jox na instruction à son à travers le premier ministre Amadou Ba pour ñu jum ko càmbar wax dëgg yàlla Sénégal ñu gën a wàññi dund bu seer bi nga xamante ne mais ñëpp a ko yëg donc loolu dañ koy rafetlu ci gouvernement bi daa am ñi nga xamante ne bokku nañ ci ñu nekk taxawu Kaolack ñu mun ciy jukki Serigne Mbaye Thiam ñu mun ciy jukki Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse ñu mun ciy jukki madame le ministre Mariama Sarr ñu mun ciy jukki également Moustapha Ba donc ñooñu suñuy ministre lañ ginnaaw bu ministre pour tout le Sénégal donc ñun amuñ lu dul ñoom te it président de la république dañ lay remercier ci li def ci région Kaolack en terme de ministre te di aussi ànd nañ ci ndawi Kaolack yépp ngir nag mu gën a gestu rek ndaw yi kaw Kaolack yi ci wàllu xëy te it nag ñoom ndaw ñoo ñooñee ñu pare rek ngir gunge ko su ko defee itam liggéey bi gën a fës gën a am dayo Bokar Diallo ba tey ci micro Cheikh Tidiane Diagne. à loolu dañuy ñaax ñi nga xamante ne ñooñu dañu leen sippi ci seen i morom ci seen i nawle ñu dénk leen responsabilité ñun nag dañoo bëggoon ñu beral ñu loxo. parce que aussi ndaw ñi am na lu bari def nañ ko. am na lu bëri def nañ ko ci parti bi am na ay poste de responsabilité yu bëri tey ñoom seen loxo am na fu mu yegg seen plaidoirie am na fu mu yegg am na li nga xamante ne ñoom mun nañ ko de pour la jeunesse surtout ñun bu ñuy wax dañuy wax ci ndaw ñi parce que lu fi yëngu ndaw ñi ñoo ko yëngal te woloom jaay daan ne lu yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole donc ndaw ñi dañoo am doole bu ñu amee doole yàlla def président de la république jël Pape Malick Ndour dénk ko ministère de la jeunesse kooku it dañ koy tàllal loxo ne ndaw yaa ngi fi les anciens sont xaar toujours ñu ngi xaar ñun ñu ngi fi ñu ngi xaar am na ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi def peut liggéey bu gën a am solo bu ñuy def kenn xamul leen ràññeewuñ leen ñu nañ leen seeti pour ñu gën a ñoŋal liggéey bi taxaw le président de la république lépp lu mu bugg 2024 ñu may ko ko loolu mooy wax ji lu dul loolu mooy dañuy woo ndawi Kaolack yépp région ñu ànd jàppale Pape Malick Ndour parce que Pape Malick président dafa am ci moom yaakaar dafa am ci moom confiance ba mu jël ministère de la jeunesse mu yokk ci emploi mu yokk ci entrepreneuriat loolu gu la yëgul du la ko defar donc nag Papa Malick Ndour waa ndawi Kaolack chef de la COJER ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon dëmb ak barke dëmb ak ñiy dugg ñoom ñëpp taxaw nañ tem pour jàppale la nar nag takk ci rëpp combat bi dem ba jeex te it di ñaan président de la république am na ay ndaw yi fi ne ñi fi nekkoon dëmb ak barke dëmb ak tey yëpp ñu ngi fi guddeeg bëccëg ñu ngi béy seen waar ñu taxaw parti bi ñu ngi taxaw coalition bi donc Kaolack loo fi def doyul dañ ay ñaan nga yokk responsabiliser promouvoir ndaw ñi pour ñu gën a mun a ñoŋal liggéey bi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM. ñu daal di euh, soobu nag wax kon ci wàllu euh, njàng meek euh, njàngale mi jafe-jafe yi nga xamee ne lekkool yi am nañu ko nag fii ci diwaanu Kaolack bi moom nag la ñu doon waxtaanee ngir rek daal di cay uti solution balaa itam ñu àgg ci ubbite gi mu doonoon itam ab CRD préparatoire boo xamee ne ma ngay waajal rentrée scolaire bu atam 2022 2023 noa bi yaay moo ñu jukkil waxtaan wa autorité administrative ak ñiy yor wàllu jàng ak jàngale ñuy xalaat di teg ay pexe pour ñu am entrée scolaire 2022 2023 bu jaar si yoon tax naa ñu am benn CRD ci thème management établissement d'enseignement amélioration performance scolaire quelle stratégie Siaka Goudiaby CRD boo xam ne dañu ko consacré si préparation rentrée des classes 2022 2023 ñu ngi gërëm bu baax a baax autorité déconcentrée gouverneur ak préfet yi ñoo xam ne ñoo ñu jàppale ñu mun a organiser CRD bi si wàllum jàng mathématique ak science dañu ne dañu mettre en place benn projet démarré na dañu nekk en phase test ak yeneen collège ak yeneen lycée projet bi dañu ko ne projet pépinière de talent dañuy maanaam dañuy jël ay élèves xam ne gis nañu ay potentiel yu baax sur le plan intellectuel ñu def leen pépinière de talent dañu leen mettre en conditionnement encadré leen jox leen ay appui ay accompagnement yàqu-yàqu ñuy jote noté ci école yi boole ak ñàkk enseignant problème enseignant enseignant motuñu parce que dañu am ay départs yu bëri yoo xam ne amuñu ay arrivé ñu leen mën a compenser alors am nañu ay absence ay déficit professeur si filière yoo xam ne yu sensible comme philosophie comme mathématique comme physique chimie comme EPS alors boobu tamit information boobu dinañ ko partager ak euh, autorité ministérielle pour que ñu seet euh, lan lañ si mën a def voilà deuxièmement tamit euh, dañu partager si établissement yoo xam ne dañu am ay problème inondation bëri nañu si surtout Kaolack commune dañu am ay toiture yoo xam ne dañu naaw école yi classe yi amuñu sécurité alors gouverneur mu ne jël na matuwaay ak préfet bi ak euh, service technique maanaam service d'hygiène ak euh, sapeur pompier ñu mun pompier ndox boobu yaakaar naa année scolaire bi lu ma déggee engagement partenaires yi mooy syndicat yi mooy APE yëpp defe naa lépp dina jaar yoon kilifa yi yoru jàng ak jàngale fii ci région bu Kaolack ñi woo maire ak waajur ndongo yi ñu gën a yoon ubbite googee nag noi bi yaay la cee yaay njàqarek kilifa yi ak la ci ëlëm seen ak bopp jamono jile ba ci jiitu nag mooy rek départ yu bari yi nga xamee ne am nañu ko ci wetu jàngalekat yi te ba léegi amaguñu ñu leen remplacer ba ca des itam mooy ne yenn ci ay barabu jàngeekaay dañu fa sumboon ay liggéey yoo xamee ne ba jamono jilee jile noppeegul lu ni mel nag koo yeggee kan wi mooy Siaka Goudiaby ma nga doon tontu laaju noi bi yaay lu si jàpp mooy yoo xam ne dañ ko jànkonto bu ñu jàppee lycée Valdiodio chantier mu ngi nekk en chantier depuis daaw mais chantier bi paregul daaw def na ba ñu organiser bac bi dañu gis que benn jury 658 dañ ko mujjee délocaliser feneen yóbbu ko lycée privé La Lumière parce que Valdiodio day suyante parce que étanchéité bi baaxuloon te ñu ngi si nawet bac bi dañ ko defoon mois de juillet mu ngi doon taw ren tamit dañu constaté que ba léegi chantier bi bougéwul kenn nekku foofu manœuvre benn ouvrier benn manœuvre nekku foofu alors ñu ngi vraiment ñaax entrepreneur bi mooy c'est koo xam ne moom mooy directeur PDG Computerland moom moo jël engagement que dina terminer dina jël en charge travaux yooyu mooy carrelage peinture tuyauterie électricité ak euh, étanchéité ak euh, montée fenêtre ak euh, bunt yi dañ koy ñaax vraiment mu jàppale ñu comme ça école bi pare ñu bañ a am ay problème parce que bu ñu amee ay rëkk-rëkk si lycée Valdiodio moo xam ne moom moo nekk lycée bu gën a rëy si Kaolack dañuy am ay problème lycée yi lycée bi bu amee problème yëpp ñooy am problème parce que élèves yi dañ si bëre mën foofu boo xam ne day dem si yeneen collège wala yeneen lycée bon dinañu démarrer école bi même si professeur dafa manqué mais dañu def audit tamit di seetaat encore besoin réel personnel ñu xam ñan exactement ñoo manqué dañuy def lu ñu ne audit bu ñu ko defee ba pare alors ñu ngi xaar tamit ministère bi envoyé ñu professeur ñu war a jógee ren fële FASTEF ak maître yi war a jógee CREM voilà maanaam élève maître ñu nekkoon formation si CRP yi bu ñu leen jotee ñaari corte yooyu ak ñu war a jógee UGB université Gaston Berger de Saint-Louis bu ñu jotee ñetti corte yooyu ñuy def balance bi ak suñu audit bi ñu xam euh, naka la def pour compléter pour assurer démarrage correct cours yi. voilà dañoo am ay départ enseignants yu bëri enseignants yu bëri yoo xam ne ak lu ñu jot comme euh, arrivé mënu compenser arrivé bëriwuñu départ yi dañu bëri kon boo defee balance bi day déficit. si ak euh, Goudia bi moomee nag doon addu mooy iya bu bi ñu des ba tey ci wàllu njàng ak njàngale utali ji Fuladu ngir itam daal di amal ubbi teg l'école bu amul itam ñu doon amal ab CDD ca préfecture bu Vélingara ndaje moomee yitam nag gisoon na teewaayu IEF ba chef de service yaak ñëpp ña nga xamee ne ñu aju ci wàllu njàng maak njàngale ma fa waaye foofee itam nag jël nañu fa ay matukaay yu ama am doole lu ko jiitu itam ñu doon gaaral résultat yi nga xamee ne amoon nañu ko ci at mile weesu Déthiou sàmba IEF bu Vélingara ci micro Babacar Diouf. ma gaaral mbooloo mi résultat yi nga xam ne am nañ ko ci at am aussi ci suñuy mébét ci ak mii di ñëw waaye seddoo ak ñoom tamit dispositions yi nga xam ne war nañ ko jël matuwaay yi nga xam ne war nañ ko jël ngir xale yi le 6 bii di ñëw ñu mën a fekk école yoo xam ne dañuy ñëw rek dugg jàng loolu daal moo nekkoon waxtaan wi waaw ñu ngi jël suñuy matuwaay yi ndax defoon naa benn note déjà pour wax nit ñi lan la ñu war a def pour xale yi mën a tàmbali njàng mi dès le 6 te gis naa tamit ñu ngi yëngu ci école yu bari nit ñaa ngi mobiliser wu xale yi communauté yi di bàyyi école yi wax nañu tamit service d'hygiène nañ lañu jàppale ñu mën a désinfecter école yi loolu yëpp ñu ngi ci xanaa bu ñu góorgóorloo ci loolu xale yi dinañu fekk école yoo xam ni dañ fa mën a ñëw jàng am na juróom fukki enseignant jàngalekat ak ñaar yoo xam ni moo ñu xawal xalam manqué bu ñu xoolee diggante ñi dem ak ñi ñëw remplacer leen waaye loolu xaw nañ ko tàmm bu ubbi ndax euh, mën na am tuuti yeexte ci jàng jàngalekat yi ñuy yónnee waaye bu ñu kam commencé tamit ñun dañuy def suñuy xool foo xam ni war nañ faa mën a jël jàngale ñu waxtaan euh, jàngalekat ñu waxtaan ak ñooñu ñu mën ñoo jàppal yenn classe yi ba ñu am ay jàngalekat ñooñu war a mën a dellu seen poste loolu mën nañ ko def. Décuk euh, Samba solo sa ndaje moom itam ba tey nag bokkoon na ca IEF ba nag daal di defuk xayma maanaam daal daal di xayma fi mu jógee ak fi mu bëgg a jëm ci ay jéego yoo xamee ne dina gën a mën a ñongal wàllu njàng maak njàng foofee lu mooy loolu itam nag moom adjoint au préfet ba nga xamee ne moo jëmaloon ndaje ma di Mamadou Lamine Ngom adduwaale na itam ci beneen jafe-jafe boo xamee ne ñoo Kaolack ñoo ko niroo muy nag ay a jàngalekat yoo xamee ne lim ba ëpp na juróom fukk ay kàddoom bëccëy ci micro Babacar Diouf. tey ñu daje woon fii ñun yef ak enseignants yi communauté yi collectivités territoriales yi ñëpp ñu mën a xool yan problème la ñu am pour ñu saafara ko afin ñu boo xam ne ouverture ñuy dugg ci dafa def présentation bilan année scolaire bi passé ci présentation bi am na ci benn point bu neex mooy que ni gis nañu au niveau régional le e, donc mu nekkoon euh, ay points yoo xam ne dañ ci profité waxtaan pour xool ci année bi di ñëw nag la ñuy def ba renverser la tendance pour que ñu mën a nekk premier fépp comme ci CFEE mais aussi comme ci BFEM bi alors ci waxtaan aussi gis nañ ni li nga xam ne dafay faral di chaque fois mooy enseignants yi ren bariwuñu ndax pas contre 14 arrivés ce qui fait un gap de presque 50 et quelques enseignants mais foofu yëf comme que moom mooy njiitu secteur de l'éducation bi moom du ñàkk mu am nu mu def ay système de redéploiement ba mën a combler gap boobu en attendant ñi nga xam ne ñoom ñoo réussiroon crème bi daaw nekk en di ñëw pour mën a compléter alors leneen li ñu fi gis ci waxtaan bi aussi muy lu neex mooy gis nañu partenaires yi ñu ngi accompagner le ñuy bu ñu naree yendu école te lekkuñu loolu dafay répercuté ci seen résultats yi mais bu ñu fexee ba bu ñu mënee di fu ñuy lekkee diggante ñaari cours ñetti cours a tax ñu campé leen ci a baax a baax a baax a ngi def ngaa ku ci nekk yaa ci dugal seen xol gis nañ ko mais dañu leen di ñu gën ci dugal seen seen loxo ndax wàllum njàng njàngale avant mu nekk mbirum sax état mbirum communauté la war a doon xabaaru faydu bi faydu bi journalu euh, gàmmu gi nag la ca gën a fës mooy yembook xabaaru faydu bi présentation euh, beeg euh, ki nga xamee ni mu di Cheikh Babacar Dieng. jaajëf mbokk yi nit jaagin jëf di leen dalal jàmm ci xibaar yi ñu jagleel gàmmu gi. Cheikh Babacar Dieng. jamono ji nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñi dëkkee ci biir capitalu faydu tijaan yi ñu ngi def seen kéem kàttan ngir wàcce mën a dalal millions yi doomu aadama yi nga xam ne war nañ ne wutal si dëkk kilifaku diine bi ci fan yii opérateur économique bi nag ñu tuddee cheikhul islam alaaji Ibrahima Niass Baye moo di cheikh Ibrahima Niass siis ñu koy wax baay siis taxawaayam moo ci gën a fës ginnaaw nag bu mu jëlee ay jumtukaay yu bëri ak ay matukaay ñëw nag di defar li nga xam ne mooy li wër jumaa ji ak yenn xàll yu mag yi nekkee ci biir Medina Baye nee na lii waru garam la kàddu yi la yëkkati. mooy defar mbedd yi. Euh, yii ñu sëkk yii ñu gradé yii ñu bétonné parce que xam nga ne pavage yi ñu ci defoon camion yi ci jaar ak ndox bi daf ko dégradé daf ci teg pression bu mag ba pavage yi yàqu def ay cratère rek ay pax fu ne li wër jumaa ji tamit gis ngeen ko yoon bi daanaka baaxatul kon au ñuy daraat ba pavage yi dañ koy bétonné bi yoon suñ ko bétonné pour mu dëgër pour que au fii ba nawet bi jeex en tout cas dina jaar yoon donc euh, loolu daal mooy li nga xam ne nii nettoyé dëkk bi ba mu set ba nga xam ne nii mbedd yi dina neex a jaar dina neex a xool dina neex a jaar waa Ageroute ñu ngay defar na le marché ba ak tali bi yaakaar naa ne ñun li nga xam ne nii mooy suñu warugar mooy intérieur bi nga xam ne nii ñoom yegg fi ñun ñu fexe ba boobu jaar yoon moo tax ñu taxaw pour xeex pour que dëkk bi lépp nooy tali yi nooy lépp jaar yoon ndax nag Baye Niass moo mérité ñu defaral ko dëkkam bi ba ganam yi suñ ñëwee wax dëgg neex yàlla mel ni Baye Niass a ngi fi waaw loolu mooy suñu warugar dañoo war a teew dañoo war a taxawal Baye Niass dañ ko war a liggéeyal dañ ko war a xidmaw ba nga xam ne fa mu nekk ne di ñu xool ah bu soobee yàlla mu kontaan ci ñun du nag politique mbaa per njaayu kenn ne rek cadre économique bi daa jàppee boppam ne kenn la ci ñi dëkkee Medina Baye te it turandoram di Cheikhul jaral na ko lu mu am ak lépp lu mu mën Baye Ciss la ñuy teewluwaat. yooyu de yaakaar naa ne xam nga ne depuis plus de xaw ma quinze ans ou vingt ans. ci liggéey boobu lañ nekk. waaw ba ñuy defar pavage bi nag. boobu dañuy waroon xaalis xaalis du dara. Baye Niass moo ñu koy jox moo nekk ci kaw teg loxoom ci suñ kaw. lu ñu war a am rek mu fexe bañ jot ko pour mën a koo liggéeyal dëkkam bi. xaalis du dara. waaw solo. ma ne sama kër gi nii nañ suma ñu utuma dara fii politique def ma tous gouvernement ban laa bokk Baye Niass na man xaaruma kenn ñoom balaa ñu daan ñëw maa nga daan def suñ ñëwee may def buñ ñëwul ma def ko ba mu neex ba mu rafet ma ne ñooñu kenn xaaru leen gisoo fi lépp a ngi dox kenn xaaru leen baa ngi nii fer yaa ngi nii béton baa ngi nii suuf camion yaa ngi taxaw gradeur yaa ngi gradé ñu ngi defar mbedd ñu ngi defar tali yi am na ay ministre mooy ñun ñu mu guddi guddi laa ne chauffeur bi jubalal kaw la pour euh, lu ñu ne lu mu laaj ñu parce que fi mu ñu toog nii ku nekk ngi ñëw naan sama buntu kër ku nekk naan ne te mel bégloonoo bu baax ñu bare bare ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee ci Kaolack rawatina ci dëkku diine bi jàpp ne gàmmu mi dina bàyyi gàmmu international la nit yu bari ñooy jóge ko ci ay gox yu fasante ko fu nekk ci réewu àdduna bi wutal si ko kon ku mel ni Baye Ciss di def lii muy def lu yàlla kenn la Cheikh Diéry Cissé kenn la ci notable Medina Baye nekkit jege ñaale imam bi. ndax gàmmu international di gàmmu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci Medina Baye nga xam ne événement bu toll noonu néew na fu mu am ci àddina bi ndax su moyee ca Nations Unies rek nationalité yi tase fii ci Medina Baye ko li rek nga xam ne moo fàkkoon dëkk bi di Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima gàmmu ñoroon ko façon boo xam ne néew na ku ko ñore képp ku nekkoon Medina ak loo nekk nekk xale fàttaleku nga taxaw Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass bu gàmm gàmmu jotaan mu itteewoo lan gan ñi itteewoo lan dëkk bi itteewoo lan lépp loo xamante ne lii luy rafetal luy taaral bés la ndax ki nga xam ne moom la ñuy màggal muy ki gën ci mbindeef nga xam ne yàlla bindu dara lu dul pour moom muy siñ sang bu tedd bi di muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon su loolu amee dëkk bi mel noo xamante ne nii nawet bi ak ni mu demee ñëpp gis nañ ko mu am nag koo xam ne moom cheikh al islam alaaji Ibrahima Ñas la tudd ndax moo ko tudd tuddee ko boppam mu dëkk ak fii ci dëkk bi ñun taxaw fii ngi jàkkaarle këram mu bëgg Kaolack la waaye ku bëgg Medina Baye dafay wax toujours ne su sañoon Medina Baye dina mel ni Medina Rasul waaye mu ngi def fii ci Medina loo xamante ne képp ku fi dëkk mën nga ko seede mën nga ko gisal sa bopp moo tax bi ñu waxee ne taw bi yëngu na démb ci guddi minuit la yegg si fii te ku ko xam-xam ne duy voyager guddi waaye ñor gu ko mbir mi ñor biñ ko wooyee wax ko bërëb bii ni mel ci la ne bàyyi na lépp itte bu mu nekkoon dal di wan gannaaw Dakar ak njabootam yëpp dal di ñëw fii ci Medina Baye pour fexe jàpp ci liggéey bii nga xamante ne liggéey Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass la xam gis-gis bu ñu mel nag éli la ko yi gisee Adja Seynabou Diallo conseillère municipale la ci mairie bu Kaolack jàpp ne Baye Ciss li muy def nii ñëpp la waroon waaye moom la ko yàlla cëralee moo tax it jëf ji ba mu ko gisee mbégte la ci moom may kontaan ci lii nag ndax ñun amuñ lu may na su na rafetee ñun la rafetal su na baaxee ñun la baaxal ndax ñun ñooy waa Médina ñoo dëkk na ñoo war a defar na bon nag dañoo war jéem a defar ñi nekk ci yeneen côté yi ñoom itam seen côté yi ndax gan ñi dañuy ñëw te gan ñi buñ ñëwee dañoo war a am place bu baax dëkk bi set waaye bu fekkee dëkk bi mel nii du dem nag bon nag maa ngi leen di nuyu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan wu gudd ak wér ci barke yonent bi barke moo baay moo ko mel nii mu mel man rek maa ko seede woon ci Medina amul keneen ku ko seede man la fekk ci néeg baay moo baayam ñu ànd keroog guddi googu la baayam génn àddina man la fa fekkoon ba ko baay téye ci bop moo tax bii nit ñi di wax ma ne leen wedduma da yi da mën nañ ko dugg waaye kenn du ko gis محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم السلك الرسل ختما مقدما yeneen CDD amal CRD jamono ji réunion nationale bi moo di li ñu nekk di wàcc lu ko jiitu nag engagement yi nga xam ne chefs de service départementaux yi ak régionaux yi jëloon nañu ko ñenn ci ñoom ñu ngi amal seen activité ci biir capitalu Fayda Tijaaniya ak xayma gu ñu def la ak Serigne Aliou si Niang kenn la ci vice président yu COMAF di comité bi ñu dénk ñu organiser activité ak manifestation yi am ci faydu bi. fi mu nekk nii Sénélec moo fi jiitu Sénélec bi ndax dafa gis ne gàmmu gi dafa tombé nawet courant am risque ak ndox ak public moo tax ñoom jëloon nañ devant xëy na loolu defaluñ ko sax comité bi dañ koo defal service Senelec bi bi nga xam ne moo amee courant ñoom booba lañ jugoon di changer poteau yi nga xam ne yàqu na ak place yi nga xam ne am na risque ñu ciy liggéey ba fi mu nekk ni mën naa wax ne ñoom lu bëri ci liñ doon xaar si ñoom am na def nañ ngi sur le terrain gannaawam service d'hygiène ñëw li ngi annoncé ci jumaa ji depuis démb pour nit ñi bàyyi xel li ñuy ñam yi lekk ak désinfecté dëkk bi lépp lu ci aju ndax période nawet la ndox yaa ngi ci mbedd yi yu sew yi naaw ñu ngi ci jaww ji te bëgg nañ dëkk bi mel ni war a mel bëgg nañ mu am hygiène bi mu soxla ñu ngi xool mbedd yi di ko saytu lépp lu ci bokk lu normalu génn ñoom ñi def li leen woon gannaaw ñoom UCG ñëw na UCG mooy curé canal yi di manque ndox yi ci mbedd mi ku nekk xam na ne ren dana jafe ndax mën ngaa manque tey mu tawaat suba te ñu ngi bëgg gunge ñu ba gàmmu assainissement ak environnement Cheikh Abdourahmane Diite ñu ngi ànd ak ñoom lépp loo xam ne lu aju ci loolu ñu ngi koy def. loolu mu junj noonu di réunion national bi tey jii ci alxames ji lañ koy amal bu 11h jotee yii la saa sax délégation bi jógee kon bi dina bàyyi yegg na Ndakaaru ñu ngi ci dalowaayu ministère de l' intérieur ngir waajal yooyu lay waxtaan ci fàttali nag gàmmu ñu ngi koy xaar samedi juróom-ñetti fan ci weeru octobre di tombeek fukki fan ak benn ci weeru rabel awal ca guddi ga di guddi fukk ñaar ñu dundal ci gàmmu gi di dimanche mbokk yi fii la ñuy yem ci xibaar yi yu tey yi di leen sant di leen gërëm waajil bi alladi talabu ya ahmad ma asabi alxiyara xabaar yi bitim réew euh, bi ci réew Alioune Badara ana foo koy dooree jërëjëf euh, soxna Ngoné xibaari bitim réew dañ koy doore réew bu Cameroun wax ci diis gi nga xamante ni dal na ci askan bi yeewoo foofu ci réew bu Cameroun ginnaaw génnum àdduna kii di Amadou Ali ci pàttali nag moom moom lay doonoon na fi jëwriñ ju njëkk ci jamono yi Paul Biya moom mu la muy génn àdduna si ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar foofu ci Yaoundé ci ab feebar bu yàgg boo xamante ni daaneloon na ko bi muy génn àdduna nag muy am juróom fukki at ak juróom jot nañ ko jébal boromam ci àllarba bi ñu weesu foofu ca Kolofata nekk ci raison bu extrême nord bu réew bu Cameroun xibaar yooyu la ñu ngi ko jot ci talaata gi ñuy wees ci ngoon ginnaaw bërëb bu taskati xibaar bii di Jeune Afrique dëggal li mel ak ñi jege njaboot gi donte sax demoon na ci réew bu Suisse ngir kat faju ji wante bi mu del seewaat foofu ci Yaoundé ci la ko mbir ma gën a sonalaat kii di Amadou Ali moomu mule génn na àdduna foofu ca Yaoundé si ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar bi muy am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent xabaar yi bitim Nigéria lu toll ak juróomi weer kese moo des ñu dem ci élection présidentielle yi foofu te ñu jàpp ko ci weeru février at bu 2023 lu fukk ak juróom-ñetti candidat ñu moomu bëgg nañ bokk ci jongante élection présidentielle war a am foofu ca réew bu Nigéria naam sax jot nañ ci nemmeeku ñaari candidat yi nga xamante ñoo gën a fës ci li ni mel ku ci mel ni Atiku Abubakar ak kii di Bola Tinubu ginnaaw président sortant di Muhammadu Buhari am a dëgmal ci weeru février foofu ca Nigéria ba tax na candidat yi ñoom ku ne mu ngi xëcc jëmale booram ngir kat a xool nan lay def ba ñu tabb ko mu doon njiitu réew bu Nigéria naam sax parti au pouvoir bi moom samp nañ ab mbër di Bola Tinubu moom moo leen bokk ci parti au bi wante ki nga xamante mooy Atiku Abubakar moom moo leen bokk ci parti bi du People Démocratique. xabaar yi bitim réew. Burkina Faso la ñuy dem wax ci fukki ak benn soldat yoo xamante ni xamante ni ba tey mënuñ leen tëggat li waral li ni mel nag tul leen lu dul benn cong boo xamante ni jot na dal ci convoi bi doon dem foofu ca nord bu réew bu Burkina Faso ci weeru sàttumbar bi nag jot nañ nemmeeku ñaari cong yoo xamante ni def na jéeya wante bii nag mën nañu wax ni bokk na ci biir gën a fës ndaxte lu tolloog fukk ak benn soldat jot nañ ci ñàkk seen bakkan ay doomu arme yu bëree bëri ba tey mënuñ leen tëggat ginnaaw bi nga xamante moo nekk foofu ca Burkina Faso dëggal na yi li xibaar bitim réew jeexale xibaari bitim réew dem ba Arabie Saoudite wax ci prince héritier bu Arabie Saoudite di Mohammed benn Salman moom moom la tabb nañ ko mu doon kilifay jëwriñ yi nekk foofu ci réew bu Arabie Saoudite maanaam premier ministre ci fàttali nag moom moom la bokk na si ñi nga xamante ni ñoo gën a fës foofu ci Arabie Saoudite ginnaaw décret bi nga xamante ni fësal nañ ko ci talaata bi ñuy weesu moom prince héritier bu Arabie Saoudite bii di wuyoo ci tuuru Mohammed Ben Salman moom la ñu tabb mu doon premier ministre bu réew bu bitim réew ah, jërëjëf soxna Ngoné yi cant ak ngërëm ñell la jaa ngeen jëf xabaaru tàggat yaram bak eh, boobee kon eh, tàggat gi lay eh, yëgle Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu mbokki auditeurs yi dina ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak Costa Cup bay am jamono ji ca Durban ca Afrique du Sud. sélection sénégalaise bi nag euh, jëm ci li nga xam te ni moom mooy football ci wax yi ci tournoi bi nag bi ni mel démb dafa lapp-lapp yu métti sélection waa Seychelles fukki bal ak ñaar ci ñaari bal éliminatoire CAN U23 ginnaaw bi nga xamante ni nag dañ ko dafa exemple ci wërngal bu njëkk bi Sénégal xam na nag ki mu war a laaleel ak ci ñaareelu wërngal bi nag moom mooy étalon yu Burkina Faso ci la sélection bu U23 ñi am lu yées ñaar fukki at ak ñett war a laale jëm ci éliminatoire CAN bi ñu leen jagleel équipe nationale bu Sénégal ginnaaw bi nga xamante ne ni def nañ seen jogante bu mujj nag laata ñu jëm ci coupe du monde bi nag kii di Formose Mendy di ku yees ci équipe nationale bi nag wax na ci li nga xam te ni moom mooy ñu bees ñëw ci équipe nationale ak wàccaayu coupe du monde bekk liñ ci mën a xaarandi yëpp Formose Mendy ci janoom ak taskatu xibaar yi. donc euh, defe naa ni résultat bu baax la en plus dañ ciy jëlee rek ndax tey ji équipe yëpp dañuy bàyyi xel Sénégal parce champion d'Afrique la équipe boobu mënti joué dañuy yenn match bi daal tu a lay xaar waaw lépp jàngat la rek en plus dañuy dellu yi gën a liggéey après moom yàlla que lii yëpp rêve la lii yëpp dañ ko doon xalaat depuis temps xale donc bu amee tey jii dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax liste bi nag yàlla rek xam ak ñun daal dañuy dellu kon ñu daan liggéeyee di ko liggéey ba wan nit ñi duñ pare nañ kon ñu ko daan defee luy ñëw si moom yàlla xam. beneen laaj bi ñu bàyyi Abdoulaye Thiam. waaw man sama ñëw équipe nationale daanaka ñëw naa coach bi jox euh, am na si man confiance ba convaincu donc sama liggéey la ak sama mënin lépp lu ma def tam si terrain bi damay sant bu baax mais après dinaa toog xoolaat sama bopp bu baax xoolaat vidéo yi yokku la rek ak njàngat moo ñu fi andi en plus ay xale lañ dañuy ñëw pour jàng topp suñuy ginnaaw grand frère ñoom Sadio ñoom Kuli loolu la jàng rek ñun moom ñëwuñu fi pour wane suñu bopp wala affaire yooyu noonu dañuy ñëw rek pour jàng. Europe ginnaaw édition Ligue des Nations bi jeex na nag xam nañu final faw bi nag bi nga xamante ni jàpp nañu ko ci juin gi ñu dëkk dëkkmal ca réewum Pays-Bas qualifié nañ ci final faw boobu di Croatie bi jiitu ci euh, groupe A bi Espagne bi nekk ci bopp bi ci groupe B bi Italie nekk ci bopp bi ci groupe C bi pays ba nekk ci bopp bi ci groupe D bi ñi nga xam dañu leen relégué nag ca groupe B moom mooy Autriche République tchèque Angleterre ak Pays de Galles lamb face to face site Papa Sow bi waroon a am dem ca place du souvenir africain nag jëm ci li nga xamante ne moom mooy promotion seen combat bi war a am juróom-benn fan ci weeru novembre atum deux mille vingt deux waaye nag ci mujjantal gi préfet bu Dakar dafa jël ab ndogal daal di dàq boobu face to face ma ko gone jaay gannaaw ba la a lekk daay yu jàmm li ma gënoon a fa si xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. li ci yéene kaay L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf ak kontoor woyofal yi woyofal leen seen àdduna ak Senelec moo leen di may li ci yéenekaay yi li ci euh, yéenekaay yeeg El Hadji euh, Seydina Oumar Cissé ah. halaan bikum njiiti réew mi mag Macky Sall xaw na yoonu jéggal Khalifa Sall ak Karim Wade ñu mën a bokk ci wote 2024 yi allah info yéene kaay moo ñu ko xamal démb daal ba muy dajee ak ministre am ya ci la wax Ismaïla Madior faal na ko faa bëgg mbooleem koo xam ne fañ koo teg ay daan ci wàllug yoon ba tax mën te bokk ci ay wote fexe leen ngeen lijjanti ko ma jéggal leen ñu mën a bokk ba tax yéene kaay bi ne wax jooju kay Karim Wade ak Khalifa ko moom moo tax xaw nañ yoonu yéenekaay yu bëri dëggal xibaar bi wal fajiri yéenekaay na makki kay fa hubbil xàllal yoon Karim ak Khalifa Sall ngir ñu bokk ci wate 2024 yi le quotidien yéenekaay na leen hee faa bëgg ngeen def ndànk Macky Sall li tax mu bëgg a def loolu nekkul pour lu nekk Khalifa Sall wala Karim Wade de déedéet Macky ci boppam la nekk maanaam fa bëgg a andi guerre xeex diggante ñetti ponkal ya nga xam ne ñoo nekk ca yeewi askanu ak wàllu muy Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Karim Wade fa leen a a féewale ci a a na ko faala ci yokkal Macky fa ñàkk pexe waaye sax gënalu Sonko mi ko sonal moo tax mu def li laas yéen a kaay na Macky dafa baatarawaat carte gi jaxase ko te mooy yéen a kaay na ko 2024 fële na bëgg a andiwaat ngir ñu jàkkaarloog Ousmane Sonko taxaw ca kanamam na ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa doo fi nekkee président ndax njéggal gii Macky bëgg a def Khalifa ak Karim dara lalu ko lu mooy politique ak intérêt boppam ndimbal la soxla ci ku ko lijjantil Ousmane Sonko ndax fa ko sonal am Sonko andil Macky am Macky andil Sonko direct news ne man daal faa foog na Macky fa a beddi Ousmane Sonko a doole nga mën leen a faagaagal ci loolu la Macky nekk l'observateur na ko du leen a déet de Karim Wade ak Khalifa gis nga amnistie bi leen Macky nar a def nii mbaa du ndëgg sërëx piège ci ñoom Abba Mbaye ci leesi ko yéen kaay na Macky fa ñàkk pexe ndax wote député yi mbuqi yi métti yi mbuqi benn bokk yaakaar mu xam ne pexe amatul professeur Ibou Sané ne lii nag su amee Ousmane Sonko ci boppam moo ciy gën a perte l'observateur du baax si ñoom na hëy faa bëgg soxlawuñu mu amnistier Karim Wade ah, yow seetal amnistie kuñ ko def mooy ku tooñ ba pare ñu jéggal la Karim Wade nag liñ ko tuumal dara du ca dëgg te ëtti attikaay yi nekk bitim réew yu bëri fa ñoo jox dëgg Karim Wade kon ñun xam nga lan lañ soxla seetal ko wecc na ko Karim musoo def dara ñun ñoo la tooñ waaye soxlawuñ ku ñu baal Bougane Gueye Dany mel ni ku naan ko taray bien li nga waxee dëgg ndax man mii d'accorduma ci amnistie jéggal boo xam ne mbiru calcul politique la a kaay ca l'évidence na xam ngeen Macky Sall lan moo tax mu bëgg a jéggal Karim ak fay aar làq ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom tey ci nguur gi di sàcc alalu réew mi Macky fa bëgg su fi jógee ëllëg ñooñu bu leen kenn topp ci yor alal ju ak sàcc alalu askan wi source a yi nekkaay na leen hëy man faa leen bëgg gàttalal wax ji gis ngeen Macky Sall dogal bii mu bëgg a jël pour jéggal Karim Wade ak Khalifa Sall dara taxut lu mooy Ousmane Sonko fa ko bëgg a ndax doole jim xam sénégalais di ko gën bëgg njiital Pastef fa bëgg fenteeg du dëgg du yoon Bougane Gueye Dany ci refet yéene kaay ne man faa bëgg Karim Wade atteem bi ñu delloosi ko attewaat ko ndax faaw sénégalais xam ndax Karim fa def wala boog fañ koo tooñ leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne njiit réew mi ci biir réew mi yëpp ñu ne déetewaay ay conseil des ministres yu muy xamal ci biir diiwaan yi Le Soleil yéene na conseil des ministres bu njëkk ci gouvernement bu bees bi ci la Macky jëlee dogal yu mag yi Touré tekki na ndombol tànkam ci groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar ndax bind na leetar jébbal ko njiital assemblée nationale lii yéen kaay moo ñu ko xamal leesi ko yéen kaay di ñu xamal na njiit réew Macky fal na Abdoulaye Balde mu jiite APIX Mountaga Sy mu jiite port Abdoulaye Dièye mu jiite AIBD Souleymane Ndiaye mu jiite SAPCO maître Malick Sall mu jiite Petrogaz alerte yéen kaay di ñu xamal na njiit réew Macky deltu na ginnaaw nee n du dem ca réewum Mali ngir waxtaan ak kilifa ya ñu bàyyi soldaaru réewum Côte d'Ivoire yañ fa teg loxo Adama Barrow njiit réew bu Gambie mooy jël place njiit réew Macky tey ci suba la ñuy dem Mali le réveil yéen a kaay na hée def leen dànk Macky Sall njiit réew bu Sénégal nekkul ne moom moo bàyyil boppam ne dew ma Mali déedéet njiit réew bu Mali colonel Assimi Koïta moom ci boppam moo wax ne Macky Sall bu mu ànd ak délégation président ya fa war a ñëw ngir waxtaan ak ñoom yéen kaay bi ne mais lii dafa garaaw échec la ci wàllu diplomatie Sénégal yéen kaay bi ne li ko waral nag du dara njiit réew bu Sénégal Macky Sall jege gum jege moo tax maliens yi waxuñ ci moom dara ndax njiitu jëwriñu Mali discours ba mu def ca mbootaayu xeet ya amul lu mu yàkkul kilifa yee naka noona tamit ñaawlu doxalinu yenn ci njiiti réew Afrique yi nga xam xam ne lu neex njiit réewu France rek la def comme ñooy seen yàlla rek ba tey enquête yéen du ñu xamal ne banque mondiale nee nañ fa ñoo jaaxle tiit ci koom koom-koomu Sénégal fa xonq nii maanaam fa nërmeelu alati yéen ne banque mondiale nag li leen gën a jaaxal mooy bor bi Sénégal amee bitim réew fay gën a yokk rek suñ koom-koom di gën deltu ginnaaw wal fajir yéen kaay ñu xamal Ndakaaru njaay téeméeri école ak juróom-ñett fukk ak juróom ma fa koo fañ la na jàpp tëj kaso te politique a tax ba tax ay sénégalais fas yéene amal doxub ñaxtu suba ci àjjuma ji ku mel ni ñoom Cheikh Oumar Diagne ak Karim Gueye ak Ousmane bu mafia kacci kacci ak Papito Kara ak ñeneen ñi ni mel ñu bàyyi leen ñu dem ñibbi réew mi yéene kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom libération mooy ñaar fukki doomu aadama faatu nañ ñàkk seen bakkan ci accident ci diirub ñaari fan fii Sénégal bu mujj bi ab camion chargement ba daanu ci kaw ab taxi chauffeur ba client ba faatu ca saasi ca mbaaw ñu ne déetewaay diwaanu Kaolack ndàngaam juróom ñaar fukki doomu aadama faatu nañ fa ci ay accident yu bari diggante ak septembre la wara journal ne accident yi fa gën a bari marché yi lakk fa gën a bari te bala ngaa dee kilifa yi naan jël nañ ci ay matuwaay te ba léegi accident yi taxul mu dakk ak lakk gi at bu nekk Sénégal juróom-ñaar téeméeri doomu aadama fa ñu faatu ci accident loolu fa ñaaw laneen lu ñaaw ba jéggi dayoo te avocat wu Adja Thiara ya wax ko ci leesi ko yéen a kaay mooy ne coow li dox seen diggante Kaliphone Sall borom làmmañ wu ñaaw saagaatekat ba mooy ginnaaw buñ ko plantee enquête kat fa ñoo clôturer dakkal nañ enquête ba Kaliphone ko mu dem ñibbi këram te ba léegi Adja Thiara xale jigéen bi Kaliphone dóor ba kanamam gi yëpp yàqu Sénégal yëpp gis ko bët ya deret rafetal ba léegi enquêtekat yi déglu wuñ ko auditionné wuñ ko ba tax ay avocat am ne lii nag mooy tooxi doon lu kenn mës gis foofee kon nag la yem ci euh, xibaar yi euh, dig leen nag euh, dajee rek benn waxtu ci diggu bëccëg gi mbokk yi jaajëfal nañu leen bu baaxa baax yéen ñi farawoon ci wàllu déglu gi jaajëfal ko moom Serigne Moussa Kane ci xarale gi Mouhamadou Khalili ci partie digitale bi waaye nag duñu fàtte waa rédaction ak waa production ci njàppandal gi wéy leen ñaanal nañu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti tawféex ak taysiir jàngeen jëfati. Le journal Ngoné Ndiaye Reine